asalaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV di leen jaajëfal yéen ñuy suivre ci li am xamante ne nii mooy revue de l'arène chaque jour ginnaaw bu ma nuyu nag ñi ma toogal fas yéene indi li gën a fas si bopp xibaar yi Mbaye Babacar maa ngi lay fay euh, di nuyu bu baax a baax suñu mbokk yépp yi ñuy topp ci Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm ak salaam. Assane Waalo. Ndeye Mbacke maa ngi lay fay di nuyu internet Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloo ñoom pour indi leen li gën a fas ci yéen kaayu làmb ji. jeudi 10 février 2021 Moussa Ndiaye président de l'écurie nous nous nous ne serons pas déguerpillés de l'école 16. Moussa Ndiaye moom mi la nga xamante ne bii moom moo jiitee école de lutte bu Balla Gaye andi na ay leeral ci génne bi ñu leen waroon a génne foofu ci école 16 bi nekk foofu ci Géejawaay sekk na waxtaan bu yaatoo yaatu ak journal bii suñu làmb andi na ci ay leeral yu nga xamante ne bii nit ñi mën nañ koo bàyyi xel. dëgg la mbay Babacar Moussa Ndiaye moom mooy président école de lutte Balla Gaye ginnaaw démb ba journal suñu la laam génnee ne école de lutte Balla Gaye da leen di waaj a déguerpir si école 16 euh, bu waay moom nag tey génn na weddi loolu indi na weddi na ko non seulement weddi na ko mais indi na également ay leeral nee na nous ne serons pas déguerpis de l' école 16. li mu ci teg mooy que ne ñoom sax pre prépa ñoom pare naan pour euh, réfectionner wala rénover mur ba ak porte yi ak toilettes yi fa nekk nee na balaa ñoo démarrer seen entraînement yi dinaa réfectionner loolu lépp. wax na également ci nee na ci loolu waxtaan na ci ba waxtaan na ci ak Balla Gaye avant muy génn àdduna waxtaan na ci ak maire Guédiawaye muy Aliou Sall waxtaan na ci également ak ministère des sports looloo tax moom lay leer na ko ne du leen dëgër biir foofu. kon mu mel ni mu ngi dalal Amoura Sarr national Reug Reug est très solide mystiquement. Euh, Amoura Sarr moom mi lee nga xamante ne bii moom mooy tàggat équipe nationale euh, bu euh, bëre ci wàllu làmb mm-hmm. sekk na ak wax journal bi waxtaan xamal nañu ne mbër mii di Reug Reug mbër la ma nga xamante ne bii mbër mu mbër mu pare la ci wàllu mystique mën na mën na wax ne Reug Reug xale koy dëkk ci wàllu mystique wante mag a koy daan wante ba léegi wax nañu ci ñett ñi nga xam ñeent ñi nga xamante ne bii mooy Reug Reug Sa Thiès Ama Baldé ak booy Niang mën nañoo dem ba téye MMA mondial bi ci seen loxo dëgg la mooy Babacar ni nga ko waxee noonu la embrois Sarr ñu xam ko mu nekk ancienne gloire daan bëre ba léegi moom moo yor euh, coach su équipe nationale bu lutte simple moom nag dafa ñëw ci Reug Reug nee ne bi Reug nga laa dajeeg moom jaaxlewul woon parce que xamoon na ne mystiquement Reug dina ko téwee nee na Reug Reug est mystiquement solide ndax nee na Reug mooy premier lutteur boo xam ne nii am na mystique gu séeréer yi mystique gu euh, lébu yi ak mystique gu joolaay nee na ñii ñëpp dañu nekk ci gannaaw di ko jàppale ci wàllu mystique loolu tax daal tiitut ci Reug Reug ci wàllu mystique wax na également comme ni nga ko waxee ci Sa Thiès ak Ama Baldé ak Siteu nee na ñii ay mbër yal na mbër mbër lan yoo xam ne nii am na possibilité teewee MMA ëllëg ndax nee na MMA benn wàcc wàll la ci lutte simple nee na euh, MMA benn euh, benn pàcc la ci ci ndax nee na lutte dafa am solo ci MMA te ñii ne nee na ñii xam na làmb ba pare moo tax MMA bi daal war nañ ci am jéego yu bëri yoo xam ne nii mën nañ ko ci def kon ñu mën a jàpp ne eh, borom xam-xam moo doon wax ci wàllu làmb di suñu papa Ambroise Sarr. oui. Biram Ñing ménager de Modou Lo nous sommes à l'écoute moom mi nga xamante ne bii moom mooy ménager Modou Xarañ Lo di roi des arènes ñoom nee nañ bu combat bi nekkoon tey wala suba ñoom pare nañu promoteur bi rek la ñuy déglu moom mi la di Luc Nicolas. dëgg la Mbaye Babacar Biram Ñing moom mooy ménager Modou Lo moom nag nee na nous sommes à l'écoute de Luc Nicolas nee na staff moom ak Estomac ak Modou nekkul euh, di déglu kuddu Ligue Nicolas nee na ñoom pare nan pour bëree huis clos waaye nag lépp ci Ligue Ligue Nicolas lay aajo. wax na également ci nee na ñoom duñ jox ultimatum Ligue Nicolas maanaam duñ ko de joxal àpp naan ko nan ko bëre tel mbaa ñu bàyyi yooyu. nee na ñoom yooyu voilà moo bàyyi noonu ñoom daal nee nañ duñ ko kii dañ koy bàyyi ak sagoom bés bu paree pour dëgg combat bi rek ñoom pare nan pour bëre. ancien lutteur reconverti en promoteur Boy Guet Ndar mu safi ses ambitions. booy gendar nekkoon fi mbër mbër mu saf xorom su mësaa bëre mu neex wante su mësaa bàkk mu neex bëre nag ba bàyyi ba bàyyi bëre mais nee na du bàyyi làmb mm-hmm. day ñëw nekk promoteur dellu fële ca dëkkam di ndar géej wala mu ñëw fii ci dakaar xool xale yi nga xamante ne bi ñoo toll ci bëre te mën a ñëw bëre mu leen di tëggal ay combat ñuy bëre dëgg la mbay Babacar booy gendar ñoom xamoon ko ci làmb ji mu nekkoon mbër bu saf xoram bi mu gaayee làmb nag moom dafa nekk promoteur ci Saint-Louis moom ay combat lay tëgg foofu ay mbëru mbëru Saint-Louis ak euh, Louga lay boole euh, di leen boole ñuy bëree ci foofu sa Saint-Louis maintenant nag mi ngi affiché ay ambition am nee na saison bii di ñëw fas yéene na tëgg ay combat yu bëri foofa sa saint waaye wax na également combat yu ko gën a marqué euh, ci carrière am nee na daal combat bu ko gën a marqué mooy combat bi mu defoon moom ak Tony ak boo xam ne nii moom la euh, ci diggante moom la doxoon ak Baye Ndiaye. nee metti la doon bëre nag moom. exactement da doon xeex ba naaw <laughs> looloo tax comme ñaari combat yi marqué ko nee na. ay combat da doon metti programme xeex Covid 19 à Pikine Ama Baldé distribue des savons des mu mel ni démb moo ñu woowoon foofa ci Pikine moom mi la di euh, sëll bu ndaw di amaa Baldé doomu Falaay Baldé moo doon séddale démb ay gel ak masque ak li nga xamante ne bii ay saabu la ngir xeex jàngoro ju bon jii di coronavirus. dëgg la May Babacar Ama Baldé démb Leewtoo TV teew na fa couvrir événement bi moom séddale na fa ay masque ay gel ay sabon loolu nag daara yi ak école yi la ko doon jagleel dégg waroon na dem Pikine Kër Massar ak Mbaaw loolu moo nekkoon ci programme bi mu nekk loo xam ne nii lu salutaire la te mbër yëpp war nañ ko roy ba léegi école de lutte Balla gay de lañuy ñuy desandi remplacement de père Balla Gaye 2 par Lac 2 ou Balla Gaye 2. ñu ne ñaar ñooñu les 2 wala Balla Gaye 2 kan moo ci wuutu suñu papa Balla Gaye 1 moom mi nga xamante ne bii moo nekkoon directeur directeur technique bu école de lutte bi ñoom ñaar ñi ngi xool ñaar ñoom ñaar kan moo ko ci war a remplace dëgg la Mbaye Babacar lii Moussa Ndiaye di président écurie bi moom moo ko xam ne ci biir suñu làmb nee na ginnaaw ba Balla Gaye 1 génnee àdduna. te moom moo nekkoon directeur technique bi ba léegi amagul remplacement mais ñaari nit ñi la ciblé yaakaar ne war nañ ko euh, remplacer ci loolu moom nag nee ne les deux wala Balla Gaye 2 kenn ci ñoom war na man a occuper fonction boobu. Uh-huh. ba léegi entre victoire et défaite Coly euh, Coly Faye de tarde à s'envoler. mi ngi noonu Coly Faye di mbër ma nga xamante ne bii ñu bëri ñu ngi ko doon xaar mu weesu fi mu toll nii mais li ñu mën a jàpp mooy mbër la ma nga xam ne demul dikkul ndax mi ngi ci diggante victoire ak défaite Assane. dëgg la Babacar euh, Coly Faye 2 nekk ci caaro sur Mer moom nag euh, mënul enchaîner ay victoire bu amee victoire tey day am défaite suba looloo tax daal carrière am instant yi euh, dox doxul dara looloo tax également suñu làmb ne Coly Faye tarde à 100 volets moom nag dernier combat wala dernière victoire bi mu am mi ngi amoon devant Boy Niang 2 loolu mi ngi xewoon sa 18 février 2018 dernier combat bi mu def daf ko ñàkkoon devant Kewal le 22 juillet 2018 moom nag jot na am 11 combats 8 victoires 3 défaites. Euh, mobile de salut le comportement guy gi ci conférence de presse bu mu amaloon. gannaaw ba mu jàkkaarloog taskatu xabaar yi bari ki démb mbër mi la di mobile de mi ngi rafetlu taxawaayu guy gi nee na guy gi nit ku baax la. wuyu Babacar ni nga ko waxee noonu la mobile de ginnaaw bi ñu fa teewee mardi bi passé te Grand Yoff mu convoqué woon presse bi pour def benn conférence de presse de presse moom nag li mu fa wax mooy que guy gi waxul ci États-Unis koy xeebee guy gi ku baax la euh, défendre na ko daal ba mu moom mii di mobile de. dëgg la Assane. ba léegi Lac de Guiers 2 Eumeu waaw mu ngi Lac de Guiers 2 ak Eumeu Sène suñu papa Gaston Mbengue moo ko taxawal. Mhm. Euh, mën nañ ko xaar le 4 avril ba léegi moom mu ngi ci insister. Lac 2 et Eumeu Sène loolu la ko journal suñu laa mu waxee lu tax mu wax ko nag euh, Gaston dafa génnoon ne 4 avril la bëggoon euh, combat boobu am. dafa génnaat démb ci journal bi répété waat wax jooju mu teg ci ne. commencé na promotion combat boobu te signé na ak ñetti télé yoo xam ne nii dinañ ko accompagner ci journée boobu looloo tax daal suñu laamu ne combat bi daal ni ñu gën a demee rek ñuy ñu ñuy gën a am yaakaar ne dina mën a dem ci 4 avril. kon amateur yi mën nañoo commencé duufal seen bët di xaar Eumeu seen ak la de Guiers. waaw dafa mel ni lii daal taxaw na 4 avril bi dafa mel ni Gaston jël na ko ba pare. yàlla na ko yàlla sottal. ba léegi journal suñu lamb la ñuy desandi euh, l'inconditionnel de Reug nekkoon ku jege rëg-rëg bëggoon ko lool ñëpp ràññee ko woon ko ci wetu rëg-rëg muy Arafat moo génn àdduna démb ñu koy ñaanal suñu borom yërëm ko te jéggal ko. Babacar nouvelle bu naxari Arafat personnellement dama ko xamoon mun na boo doon ñëw Adrien Senghor da koy fekk. Hmm. lu mu fa doon def mooy fecc bu tëggee mu fecc ba neex dem toog moom nag la journal suñu làmbee tàgg démb nee na génn na àdduna te benn inconditionnel rëg la ko woon fa rëg-rëg daan dem dafa do da ko doon topp nekk ci ginnaawam di ànd ak moom bëggoon ko lool nag. boo ko doon woo ci rëg-rëg bu amee combat danaa la bul na sa xel daal bul tiit rëg-rëg day dem daane ko facilement. ñu koy jaalee ay mbokkam di ko ñaanal également fi mu jëm gënal ko fi mu jógee. di ko jaale également rëg-rëg le grand champion. di ko ñaanal fa mu jëm gënal ko fa mu jógee rek journal record lañ jëm distribution de matériel. contre le Covid 19 comme ni ñu ko doon xaarandee Ama Baldé woote ko fee ca Pikine Ama Baldé dribble la presse et se cache à Tivaouane Peulh mi ngi noonu Ama Baldé démb moo woon presse bi foofu ca pikin ngir séddale li nga xamante ne bii mooy aar doomu aadama yi ci feebar bu bon bi bile di coronavirus démb nag ba fa presse bi demee mel ni euh, euh, presse bi ba fa demoon yëpp Ama Baldé lan doon xooli. mais dañu dem gisuñu Ama Baldé euh, journal bi ñëw ne Ama dafa nax presse bi ndax kenn gisu ko. dëgg la Mbaye Babacar Ama Baldé dribble la presse et à Tivaouane Peulh noonu la journal record wax. nee na Ama daal dafa dribblé presse bi ko fa doon xaar ba pare dem Tivaouane Pël tëgg njaax toog wax na également que ne ci distribution matériel boobu moo doon def ministre Aly Ngouille Ndiaye participé na ci 2 millions Diouf Sarr moom tout ce qui matériel moom moo ko ko jox am na solo. loolu nekkoon initiative bu rafet waaye waroon naa ñëw rek gars yi gis ko di leen jaajëfal bu baax loolu moo nekkoon li gën a fas si boobu xibaaru làmb mbay tàggatoo waaw xanaa jox gaa yi dig daje rek incha allah bu ci yàlla àndee suba ak jàmm ñaanal ñëpp jàmm ak salaam di sant bu baax a baax waa 100 pour cent Mbaye Babacar ñoom ñi nga xam ne dañ ñuy topp saa su nekk ci revue de l'arène. mais yaa ngi doon nelaw <laughs> euh, maa ngi lay remercier di remercier comme d'habitude waa Linguère di jox dig daje internetu Leewtoo TV suba ak jàmm incha di leen jaajëfal jaajëfal internet Leewtoo TV jàkk jaajëfal sama équipe technique Mansour ci caméra bi Yacine Fall Ousmane di bëggee Mansour bu baax a baax a baax Aïda maa ngi di bëggee bu baax di bëggee sama ñaari laqar yi comme toujours leen jaajëfal leen jox dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV.